njee ci ëtt bi gannaaw nag ajub makaren ji kon ujaaj yi ñu ngi toll ci wattaayu ñibbisi vol bu njëkk bi tey lañ ko programmé ci 2 heures du matin wante ren ji nag liñ ci seetlu mooy njaboot yi nga xamante ne dañuy teeru seen ujaaj yi mbumbaay nemmeeku wuñ ko ci ndax jafe-jafe yi ci wàllu koom Fatou Bintou wan a Camara lañ ci àndal ci waajtaay ci àllarba ji la ujaaj yu njëkk di jóge màkk di yegsi si senegaal fi mu toll nii nag ñu nekk ci wàccaay ngir teeru leen. sama doom moo dem màkk moom lañuy teeru xam nga gan gu jóge ci yonent bi foog ñu teeru ko. sama doom ju baax a dem màkk. maa ngi pare pour ñëw teeru si ko. màggal ka teeru ko wane na ci yonent ba la jóge. famille bii di waa waajal bu yam ñibbisi boroom kër gi ak dund gu seer gi ñu nemmeeku yaayam di wax ni kenn yàqatul jamono yi mais mën na bañ a rëy rëyaay boo xam ne daal dafa ëpp waaw mën na yem rek. léegi am na ci yoo xam ne nag moom wax dëgg yàlla dafa ëpp daal waaw parce que dëkk bi dafa metti dañuy def lu yem rek. ku jóge ci rasulilaay dañ la war a ganale dañu koy ganale rek ganale bu yem. ganale aji màkk yu rey yi ñu daan gis ay jamono doon lu wàññeeku tey jii li ko waral mooy jafe-jafe àdduna bi mbokk yeeg am di jàmm yi taamu di def terte bu yem ci seen biir.